waaw CRD bi dafa dajale woon tey administration régionale euh, euh, si njiital gouverneur ak comité d'organisation des manifestation activité de la fayda ñu koy wooye COMAF euh, lu tolloog ñeenti waxtu ak lu ko ëpp ñuy waxtaane matukaay yi nga xamante ni jàpp nañ ni foog ñu taxawal ko pour gàmmu gi ñu jëm incha allah ñu jàpp ko si njeexteelu weeru septembre pour gàmm gi ñu mun ko def si fànn anam yu gën a euh, jàppande euh, si loolu nag am na ay bëgg-bëgg yu comité bi feeñal et bëgg-bëgg bu nekk chef de service ba mu concerne am na ay tontu yoo si indi yu bëri nag defe naa tontu yi dal na xel bien que am na bëgg-bëgg yoo xamante ni daf ñu dépassé il faut ñu jox ko ministre de l' intérieur mu xool ak naataangoo yeneen ministres yi nag lañ koy càmbare indi sa ay réponse looloo tax après CRD bi day am lu ñuy tuddee réunion nationale am ministre de l'intérieur avec tous les services centraux concerné ñoom ak comité d'organisation bi ak ñun ñi ñoo fay daje pour waxtaane ko pour compléter ou mottali li nga xamante ni jël nañ ko fi ay ay disposition au niveau régional waaw ñëpp xam nañ si contexte nawet la looloo tax intervention yooyu yëpp également dañ koy caler si contexte boobu Euh, suñ fàttali ko daaw su guddi gàmm gi sax la la taw waaw taw bu xaw a metti mais disposition yi nga yi ñu jëloon tax na ba parce que ku ne taw souvent mu ànd ngelaw da ngay xalaat coupure courant mais li taw bi di bëri bëri daaw suñ ko fàttali ko coupure courant amul n'est-ce donc euh, chaque service rek xam na ni si nawet lañ jëm mun na taw taw bu bëri donc dispositif bi ngay mettre en place bi ngay jël en charge aspect boobu même si wàllu wér bi yaram am na ay ay ay feebar yu fi dugg ñu koy wax crimée de kongo six cas Sénégal amagum ñetti ñuy faatu na soo xoolee li ñuy wax taux de létalité cinquante pour cent la donc te muy jóge souvent si mala yi di jóge si ndox mi te ñaar yëpp dafa am Kaolack donc si loolu disposition yu ñuy jël day jël en charge aspect boobu muy environnement bi même si wàllu bëgg-bëgg yi sax dama ko fàtte wax si tubaab service yu bëri sax xaaruñu réunion bi lu mel ni Seneweb commencé nañ seen entretien commencé nañ extension commencé nañ liggéey bu bëri lu mel ni ordonnance curage bi def na si lu bëri en rapport avec la mairie donc service yu bëri sax comme xam nañ fan leen di xaar li ñu ndaw li ñu yor si ay moyens commencé nañ déjà di si liggéey en attendant ñu ñëw renforcer la euh, Medina Baye dafa nekk si commune Kaolack ku nekk commune Kaolack xam ni zone police la maanaam ni Sénégal organiser sécurité loola tax lu tolloog si juróom ñetti téeméer euh, policiers dinañ leen mobiliser ñu ñëw mais lu ko jiitu également si yoon yi ak lu war Kaolack waa gendarmerie également dinañ ñëw taxaw pour jàppale polis li ñuy wax en amont euh, nga xamante ni liggéey boobu dina gën a jàpp ni duñ si am benn jéeya jafe-jafe boo xamante ni dina jëm si wàllu sécurité bokk membre ci coordination combat représenté fi Baye Mamoune Niass moo wax ne yëpp yemb na mais CRD bi ñëw na gannaaw buñ defee woon CDD boo xam ne dañ ko defoon ak le préfet bi ko defee am na yoo xam ne yi réglé woon nañ ko am na yu desoon yoo xam ne yi il fallait que ñu ñëw fii nii ci kanam gouverneur ñu relaate ko ñu waxtaan ci loolu itam def nañ ko tey euh, service yëpp wala commission bi dafa am ay secteur am na secteur boo xam ne dafa aju ci sécurité ak mobilité nit ñeeg yooyu boobu waxtaan nañ ci waxtaan nañ ci ndox ak courant waxtaan nañ ci environnement assainissement waxtaan nañ ci santé wax nañ ci secteur yëpp secteur yëpp ñàkkul ay problème mais quand même li ñu gis yëg ko mooy ne secteur yi fi ñëw yëpp chef de service yi fi ñëw yëpp jël nañu ay engagement am na déjà ñoo xam ne sax commencé gum nañ seen liggéey donc mun nañ yaakaar ne benn problème yaakaar nañ ne duñ ko am mais nag euh, am na benn mbir boo xam ne bii mun nañ ko waxaale mooy au niveau de Médine dispensaire lañ am euh, tabaxaat nañ ko defaraat nañ ko suñu mënoon am possibilité mu nekk euh, benn centre de santé konoon dinañu neex te dina baax ci dëkk bi dina baax ci zone bi mais problème yi nga xam ne daal mun naa ko wax mooy ne problème de coordination amoon na ci yenn services yeeg yooyu mais yooyu yëpp waxtaan nañ je pense que mën nañu wax ne daal CRD bi ñëw na ci waxtoom ba pare te waxtaan nañ ak monsieur le gouverneur ak chef de service yi ci point yu bari yaakaar nañ ne liggéey bi sori na li ci des bariwul c'est vrai que ni ñu ko xam ni nga xam ne moom lañ bëgg a def foofu noonu lépp xajul fi mais quand même toit bi pare na yaakaar nañ ne foofu installation courant ak yooyu dinañ fa mun a gàmmoo rawatina la sax li nga xamee ne nag ci nawet la ñuy gàmmu je pense bien que problème tente yi ñu doon am ak yooyu yëpp loolu dina ko régler je pense bien ko dinañ mën a gàmmoo foofu. Euh, merci beaucoup nous sommes satisfaits de l'engagement des chefs de service oui ça on peut le dire mais je commencerai au préalable par remercier les autorités administratives de Kaolack en l'occurrence monsieur le préfet et le gouverneur euh, pour la tenue un peu à temps de ces deux réunions importantes qui déclenchent les échanges entre l'administration et le comité d'organisation à propos des activités préparatives du Mauloud international de Medina Baye. Ça vraiment, on tenait à les en remercier au plus profond du cœur et au nom de l'autorité de médina et de toute la communauté des talibés. Euh, ceci dit, comme vous l'avez dit tout on a fait le tour de tous les points. Euh, certains engagements nous rassurent Mais sur certains secteurs également, nous continuons à attirer l'attention surtout des autorités centrales. Je tiens à aborder la question de la voirie urbaine de Kaolack. Euh, le premier point du cahier des sollicitations est la sécurité et la mobilité. Les gens qui s'occupent de sécurité ne pourront faire leur travail correctement que si la mobilité se passe normalement dans la ville de Kaolack. Et tous ceux qui connaissent Kaolack savent qu'actuellement, tous les axes à l'intérieur de Kaolack qui mène à Médina mérite un travail important d'ici le Maoulou. Que tu comprennes euh, l'axe principal qui part de la nationale numéro 1 vers Médina et tous les autres axes hein, qui proviennent de, qui, qui mènent vers Djurbel, qui mènent vers Gossas, les deux voies qui sont au niveau de Nyaritali comme on les appelle, tout ça c'est des voies qui nécessitent un travail important d'ici le Gamou. Je, je, pense que l'État central a besoin vraiment de venir en aide au service régional de l'Ageroute pour que ces travaux puissent être effectués avant le Maulout, surtout que nous sommes en période hivernale. Je pense que insister sur la mobilité des gens est un point important qui peut contribuer positivement à une bonne organisation du GAM. Euh, est toujours en chantier et ce qui est sûr, c'est que c'est là-bas qu'on va passer le Mawlud et Inch'Allah, il sera dans des conditions d'accueillir le Mawlud. Ça, vraiment, nous sommes en parfaite collaboration avec les gens qui s'occupent de ce travail sous l'autorité du, du Khalif. Euh, l'autre point que je voulais aborder, si, si vous permettez, c'est la question du centre de santé comme mon Euh, collègue Mass Amadou Bitey l'a abordé, c'est que vraiment médina Baye souhaite que ce poste de santé soit érigé en centre de santé pour mieux servir la communauté des chefs religieux qui est ici à Médina, mais également la population de Kaolack en général.